jeewal suri wut fi xana jeewal mom néewul ci asaman si jeewal néewul malakut kuna kiri, konakiri jeewal ngi ni tout près ñu ne la à 1895 fi seigne touba jamar lok nasaran bi mu ne ko do fanaan mu ne ko day fanaan do yend mu ne ndigal lima jot ci sama borom moy fanan. defana ko ay espèce ci wër yori fetal na la doo fanaan nga ne danaa fanaan ci biir xur wi tañ jot ordre te du même porte qui moo la jël si ndax l'éclair mi la jël si booba dafa nekk gouverneur bu lugo bu la tubaab bi mënta joxar bi fetal na la jógal nga ne du ma jóg ab tubaab du la wax weer feeñ ab tubaab du la wax woril sëñ tubaab bu nangu woril ak woral du sañ ci tuubaa 1886 89 88 bi muy sañ ci tuubaa tubaab yi yónnee nañ ngir bañ sëñ tubaab sañ ci tuubaa du ko jaral génne Mbacké Bari it ba mu jàmmaarloog ñoom it day négocier dellu ginnaaw te teewul mu wane foog dëgër jeewale ngi nii moom senegal nga dëkk du ko fenn dégg nga turu jeewal loo ci bëgg a weddi ak tay tay lu rek la te yoor yoorub jeewal gis nga ko boo ci xamul dara bi du gis télé bi ñu annoncé màggalu jeewal xanaa war ngaa laaj istibaar bi lu ko waral ñu ne dajeeg sëñ tubaab ak tubaab bi te yëgal nga sa bopp ne tubaab yi ngay sukkandikoo ñoom bind leen seen i archive wane leeraayub jeewal keroog am nañ tiitaanga joo xam ne liñ gis mu def renfort pour ñëw taxaw ci wetu Serigne Touba xamuñu lu def loolu. bu la loola jaaxle am na béréb bu ñuy wax ndar 5 septembre bu dul set murid di takki wata di maggale ñu ne fu jëm 5 septembre ñu ne suuru six ma Cheikh Amadou Bamba ci biiroom ndar mu julli fa ñaari rakk ku taxaw ci kanam góornóor julli ñaari rakk yoo xam ne 45 minutes la diire ñu tegal la taabal tegal la këyit nga signé xul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kooku tubaab du la jox weer wooy woree bu ko nangu woon dem fenn Bamba amul benn bëgg-bëgg wala benn yitte wala benn xemmanteef wala lenn benn jullu pour Sëñ Tuubaa